waaye bi gën a doy mooy jafe-jafe yi nga xam ne tey andi na njàkkare njàqare ci sénégalais bu ne te mu lalu ci politique ñu fas yéene ci waxtaan ak yéen ci tuuti jafe-jafe nag dara waralu ko lu ki ñu dénk réew mi mu fàtte ni dañ ko koo dénk jàpp ni da koo donn wala lu mu jënd la cëpp marché muy moomeel ba tax nag